élection euh, c'est une affaire personnelle déedéet une affaire personnelle D'où le président de la république nous Bopam. constitution bi clairement nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs monsieur le premier ministre est-ce que la femme que solo def membre du gouvernement yi une position claire même ce groupe parlementaire bii bëgg nañ position bu claire est-ce que da ngay président de la république doit war a defaat troisième mandat ou pas loolu mooy la question question boobu bëgg nañ nga tontu ko sénégalais yi bëgg nañ dégg ce groupe parlementaire bëgg nañ koo dégg man mii it bëgg dégg parce que il dafa war a leer bu fekkee ne da nga jàpp da nga un troisième mandat mais nga assumer ko monsieur le premier ministre nga wax ko ñëpp dégg man japp naa ne loolu warul am parce que man yow président du groupe ak ñi fi tok ñëpp dañu andone wax sénégalais yi né constitution 2016 dañu ko verrouillé ñun ñëpp wax nañu ko bu féké né da nga changer position mais kooku sa droit la mais wax ko ñu dégg ko sa ministre yi dégg ko sa groupe parlementaire dégg ko sénégalais yi dégg ko mais wër-wërloo bobu wër-wërloo bobu mom nga war clarifier boko clarifier ba nopi ñu sét ni ñuy def nak ak li nga xamné mom moy ordre du jour bi ñu ngi leen di gëreum di leen sant merci cher collègue la parole